bonsoir amis téléspectateurs bienvenue dans votre émission Vox A euh, tey nag ñoo ngi nekk fi nga xam ne mooy Ouest Foire ci euh, studio bi tudd Loras euh, production donc foofu lañ nekk rek fas yéene am waxtaan ki nga xamante ni mooy Bass Thioung donc dañuy ñëw rek jàkkaarloog moom nuyu ko daal di waxtaan ak moom bu ko defee ñu gën a xam kan mooy Bass Thioung Bass nuyu nañ la. waaw fay naa leen maa ngi nuyu waa Vox TV bi yëpp di nuyu àdduna di nuyu diaspora bi. di nuyu samay soppe waaw di nuyu képp ki nga xamante ni mu may bégee te musuma gis di bégee tamit ñi nga xamante ni ñu ngi may ñaanal waaw di ma dooleel te xamuñu ma tey jii nii maa ngi sant àdduna waaw di bégee ñëpp saan mu ngi noonu nag kon Bas dafa am question bi ma lay njëkk laaj mooy bi nga xamante ne àdduna bi yëpp moom la ñuy laaj ñu ne Bas cuun la wala cumu du Bas cum du Bas cungu <laughs> Bas cung la cung cung euh, instrument bi ma doon joué la te moo koy joué ba tey soo dégloo samay son am na benn affaire bu siy nekk cung la loolu mooy cung moom la boo rek ak asiko wala boo demee groupe balay dañ koy joué ak jéembe comprendre nga waaw loolu lañ ma tuddee di ma woowee bas cung. ah da cee aayoon daal. non aayu ma si sax waaw dama doon naa ko def daal parce que kenn aayul. <laughs> am na solo mais léegi bëggoon nañ xam aussi ndax bas moom géwél la wala géer parce que bas macha allah euh, su taasoo rek ñëpp dañuy signé. bas. loolu ñu bëri sax jot nañ ko xam léegi bas moom géer la lébu la si nday léebu la si bàyyi amaana aar dafa nekk loo xamante ni amour la ci ñu naa waaw parce que passion la doon ko jàpp di ko foowee xam nga doon loo xamante ni tey jii luy nekk si nit la am na ñu ko judduwaale am na ñu ko nàmp am na ñoo xamante ni dañ si juddu mais am na ñoo xamante ni aussi euh, day nekk si ñoom quoi lépp loo gis muy liggéey bi am na don aw ma yaay woykat aw ma papa aw ma maama woykat aw ma tey jii képp kenn sama famille koo xamante ne mu ngi si aar mais nag dafa nekk loo xamante ni daal dafa nekk ci man waaw te nit nit mayul boppam daal fa mu nekkee ci man man nangu ko dund ko yàlla di def sutura. est-ce nañu xam depuis combien de temps yaa ngi nekk ci musique. waaw musique moom musique euh, yàggul yàgg naa ci aar nag mais yàgguma si musique waaw daan nekk si musique euh, di jugé. jeu affaire yooyu noonu mais maanaam nekkul loo xamante ne yàgg nañ si daal waaw mais yàgg naa si aar may nekk xale laa bëgg aar voilà waaw mais euh, ndeysaan kon euh, bi muy nekk xale la def li nga xamante ni rek bëggu ko ci xolam muy aar euh, est-ce que Bass mën nañoo xam aussi nga expliquer ñu tuuti rek ci sa enfance parce que boo ne Bass moom euh, du géwél amul yaay amul papa boo xamante ne mu ngi ci musique donc mu li mu mën mu mën ko Sénégal yi yëpp ñu confirmer ne Bass macha allah dafa mën a wéy dafa mën li muy def donc loolu noonu naka la demee sax enfance dafa am ñoo doon suivre ñoo xam ne dañoo nekk ci musique wala lan la. waaw dafa doon loo xamante ni rek euh, li ma doon fooyee la man doon loo xam ne xam nga HLM fi ma dëkk dafa nekk koñ boo xamante ne koñu aar la parce que boo nekkee xale. foo jaar di nga bëgg asiko te di nga am amour sax mën asiko parce que temps ñuy football booy football ay nawetaan wala booy jouer sa koñ affaire yooyu assiko bi da ngay am amour bi ko booy football da ngay yaakam di gis asiko même booy football da ngay bëgg sax yow mën asiko passion amur boobu rek da lay neex rek man loolu ma dugal si aar. ndeysaan mën nañoo xam nag say inspiration fan nga koy jëlee. waaw samay inspiration maa ngi toog di ko xalaat kenn mësuma bindal kenn mësuma jox ne ma am waxal lii wala waxal lee mësul am. kon yees maa toog inspiré ko def ko zusal toog inspiré def ko musuma dem ci kenn ne ko dama bëgg nga bindal ma wala dama bëgg nga defal ma moo tax nag xam nga dafa ko ñu dara daal parce que aar moom doon loo xamante ni am na ñoo xam ne seen liggéey lal la mooy bindalaate di jaay rek waaw te jooñu sax songaguñ leen waaw waaw inspiration yu jot a am maa koy inspiré wu di ko def nit ñi di ko bëgg yàlla na yàlla xeeb dool yi macha allah yal na yàlla xeb doole am na problème bu fi jotoon am boo xamante ni defe naa ni sax nit yi wax nañ ci ba bàyyi mm. waaye nag ah, wax waxaat du bëri wax leerali ay wax la mm. ki nga xamante ni mooy maman Zezel seen problème nu mu demee woon ak ban relation ngeen amoon bien avant euh, li nga xam ne mooy problème amaana dafa jumoon rek parce que nit ku nekk te jii nii nit nga mm-hmm. xale la xale laa sénégalais lañ ñun nationalité sénégalaise dañu am Sénégal benn bopp la kenn du ko xar ñaar te nit boo nekkee góor dangay moytu tàgg santé ak détail parce que ñun ñëpp jigéen nañu jur te tamit jigéen moom danga koy fonk daf du siy rafet te boobu léegi kenn déggu ma ma wax si mu gisee mu génn mënoon naa toog toog émission génn ma nag bu ma defee loolu rek manqué parce que góor laa mun naa gis sama rakk bu jigéen def erreur moo wax ko yedd ko conseillé ko parce que man nit xale laa matuma dafa jumoon te ndaysaan xamante wu ñun am na anniversaire am nit wax ma mu defal ma ma defal ko vidéo defal naa ko vidéo ba message ma di ma ñaanal naa ma dafa jumoon dafa jàkkaaroon ki mu doon waxal man la affaire yooyu parce que xam nga rek àdduna moom euh, lépp kenn mënu ko wax daal mais sama rakk la xam nga tey jii nii moom journaliste la man artiste la ñun ñun ak mun mën nañu ànd defandoo lu ne man artiste yi sax lu ñuy créer su ma gisee sax moroom artiste créer dara du ma laal parce que liggéey daa metti ma li may créé Zezel si gën a ndaw kon yes biir bi mu def si réew mi Zezel def na biir bu rëy Zezel defu kon yes tey jii gis naa ñoo xam ne ay canal def seen panneau fépp kon yes mënoon naa dem ne damay plainte mais xale laa li yàlla bind sama jë dinaa ko am li mu war a am rek dama koy am te lépp lu may am yàlla na ma lew am ko amin bu rafet xam nga waaw sama rakk la maa ngi ko waxaat xappi bese yi yàlla na ko yàlla defal jàmm mu dund lu bëri message na ma di ma baalu àq xam nga ñaanal ma moom ci na ko yàlla defal jàmm si carrière am parce que tamit xam nga rek aduna moom amul solo waaw a wax daal allah am na solo kon nag da ciy baax rek Sénégal ñu xam ne nag problème amoon na entre maman ki nga xam ne mooy maman Zezel ak euh, Bass mais léegi nag lépp jàmm kon nag euh, macha allah Sénégal lii rek moo fi mën a nekk Bass dañoo gis ne euh, li def macha allah nice na torop adduna bi yëpp dañoo dañoo bëgg bas ba ci xale yi ndaw yi sax koo wax mu ngi wëyantu ay wëyu was bu ko wax mu ne la kon yees kon yees say say inspiration macha allah nit yi dañ koo bëgg torop bas est-ce que yaa ngi am déjà benn label boo xamante ne yaa ngi fa nekk bu lay produiral say single et tout ça. non man nekk gu ma benn label mais am naa sama papa boo xamante ni mu may jàppale Papis Ndiaye Papis Ndiaye studio bleu fa sax laa defee kon yees. muy sama papa di ma doole xalaat di ma conseiller ak Cheikh Anta Ndiaye Ndiaye mooy arrangeur Wally Seck euh, doon koo xamante ne ku baax la parce que du ma fàtte mukk fajar bu may ñëw studio am boobu kenn xamuma fu ma jël gëm ma taxaw si affaire bi di ma conseiller di ma jàppale keroog bu may jël prix bi ma jël lekk euh, waa Leral Awards fa laa ko jëlee mënoon naa dem jël ko sama kër wala jël ko feneen mais dama ko jël foofu parce que am na lu mu si jàppeewul bëri waaw mais si ñëw ma ak benn label nekkuma ak benn am na solo am na solo lool macha allah yal na yàlla xeb dolli euh, foofu sax laa bëggoon a ñëw muy kii trophée yi nga xamante ne jot nga koo am bu fekkee ne mën nga ñu cee leeralal tuuti rek naka la demee woon ak ñan ñoo nekkoon ñi nga xam ne ñoo ko organisé woon. waaw trophée benn bi waa Raaya Awards la boobu amoon na ay vote beneen bi leeral Awards la. Euh, boobu amuloon amoon na vote aussi mais boobu vote yi man yëguma si dara dama xëy ñu woo ma téléphone ne ma allo Bass Thioung la ma ne waaw euh, ñun la waa leeral Awards waa leeral point net donc ah ok ngeen def ñu waxtaan ci am sante ñu ne da nga jël benn prix mais révélation leeral Awards day am chaque année euh, yaa trois personnes ko sekkoon mais internet yi ñoo voté waaw yow la ñu votel ne yow yaa ko Bas dañoo gis ne dafa am benn complicité bu am sa diggante ak Wally Seck loolu lan moo ko waral nu mu demee noonu yow ak Wally Seck. waaw ah, Wally sama mag la sama lépp li ko waral mooy euh, loolu wax naa ko waxati ko te bëggatuma si sax di sori moom sax bëggatu si sax di sori parce que Sénégal ñu ñëpp a bokk ndey ak après aar bi ñaan nañu yàlla doon leneen ak leneen. Euh, mais yàlla day boole ay nit te moom mooy li ma wax rek avant ni may xam maa moom dañoo amoon ay relation amoon relation boo xamante ni nag dafa fort ndax kooku noonu tax ni ma mel tey moom la muy sama yaay man sama yaay moo ma ñaanal moom ma def tey ni ma doon ku mën nag sa ndey tax waaye nag euh, nit ñi bokkuñu am na ñoo xamante ni duñ ko comprendre noonu Wally dafa doon koo xamante ni nit ku baax la du ma ne moo fi gën duma ne moom rek a fi baax mais sekk nañ loo xamante ni su ma ko wanewul lekk dama foo te àdduna moom nit da ngay doon nit koo xamante ni ku la defal lu baax tamit de ko wax looloo waral suma diggante moom it mu bëgg ma am ci man yéene am ci man yërmande am ci man tey jii loolu may wax lu avant lii la parce que ndeysaan bu ñuy mujjee gis avant may génne lii ñu ngi toog waxtaan mu ne ma ndax am nga passeport ma ne ko non aw ma passeport mu a xaalis bu bëri ne ma defaral passeport dama la yóbbu nga tukki dinaa lu yóbbu nga tukki te boobu lii xewagul kon xam nga kon dafa jàppoon rek te yàlla tax teewul boobu noon mu ngi gérer yoonam ñu koy a xam ñu ngi koy xam mi ngi turam mi ngi fépp sama yaay tamit bëggoon ko sama yaay feebaroon mu taxaw si benn geste boo xamante ni amaana am na ñoo xamante ni sax jege woon nañ ma taxawuñ si nekkul ni maag waa li ñu mel tax na ba mañ ma mel a keneen neneen wala dara mais moom fekk nañ loo xamante ni du lu may toogati di ko wax parce que moom it bañ mujjee toog dèjà sax loolu maag moom maag bas mi sama rakk la sama lépp la kii maag moom bëggatuma sax di si wax ma ne tamit waaw doon loo xamante ni répétition daal lay doon mais nit koo xamante la nit ku baax la nit ku ñàkk ki ñaan la waaw nit koo xamante ni la waaw euh, sans façon ku baax la waaw tamit euh, di ko remercier di ko ma di ko féliciter si prix bii nga xamante ne tamit jël na ko Leral Awards man yàlla na ko jik yàlla na ko si yàlla dooli sutura bu baax a baax a baax waaw nit ku baax la suñu relation maak moom moom waaw jéeg na tey dañuy waxtaan dañuy waxtaan naajement dañuy waxtaan naajement am nañu relation yoo xamante ni relation mag la ak rak mos naa taxaw ne sama yaay nga sama papa la parce que sama yaay bu ma gaañoo man sama papa gaañoo na sama yaay gaañoo na dafa taxaw ne sa papa gaañoo na sa yaay gaañoo waaye di nga xam ne ñàkkoo papa ñaaxoo yaay te la ku la xoox loolu la féete maanaam si yaay dina la féete si papa fii yàllaa yor ñëpp yàllaay dimbali ñëpp ndax tey jii nii li fi waaye am rek yàlla la waaye tamit nit boo amee moom relation bu bien da ngay tamit di ko wax ak di ko wane wax rek fajul dara mais jëf daal moo gën ay wax mais moom am nañu jàmm salaam daal. ndeysaan est-ce que amoon na yeneen affinité ak yeneen artistes si ñëpp laa amal affinité ñëpp laa amal jàmm ñëpp ñëpp képp kuy artiste fii nii tey ji am naa yow jàmm. waaw. muy Pape muy suñu euh, muy El Hadj Keita euh, Tarba mbaay gars yëpp su ma xewlee ñoom ñëpp dañuy ñëw parce que tey jii aar bi ñëpp a far ñëpp a bokk nday ak baay waale ba may dugg dugg si aar rek waale daf ma mos wax benn wax demal fépp sekkal ak ñëpp jàmm jegel ñëpp bul am xaar ma yàlla ci kenn mais des xam nga àdduna ñi ñee bokkul gisin euh, gis ku ne ni ngay gisee bokkul mais maanaam man bu ma moon ñëpp laa amal jàmm ñëpp samay frère lañ parce que lii liggéey la ku su ne tey ji yàlla ngi lay jox sa li nga si war a am ku su ne tey ji ñi ngay lay bëggee ku su ne li nga si a am donc si am waaw parce que ku ne yaa ngi sant yàlla mais tey jii nii moo tax jàmm si la lépp xaj ñëpp laa seekal jàmm ñëpp laa amal jàmm te ku su ne tey képp kuy artiste yàlla la yàlla defal jàmm sa yoon dool la sutura mu ngoog am na solo lool waa léegi nag bëggoon nañ xam euh, dañoo gis ne am na benn événement boo xamante ne yéen a koy waajal le deux muy benn concert loolu naka la demee. waaw loolu lu mu demee mooy loolu sama mag a ko tëgg G fitness moom mu yor salle de musculation mu war a ubbi salle de musculation bu mag biir Yoff war ko inauguré incha allah léegi mu préféré def ko concert euh, place Mamadou Diop bi restauré Yoff bi foofu rond-point Yoff si bi restauré bi place di woo ñëpp incha allah si le 2 février boobu noonu si kàttanu yàlla. macha allah kon le 2 février lay doon bu soobee yàlla euh, bëgg nañ xam nag yow sa album bi nag fan la toll nag bas fan si yàkkamti nañ ko de ñëpp a ngi koy xaar. waaw xam nga àdduna moom liggéey moom jarul de <laughs> parce que dëkk bi toll na foo xamante ni lu waaye di génne xool ko toll na foo xamante ni li ngay génne tamit war na doon loo xamante ni bu dee as tuut sax war na saf nit ñi parce que nit ñi kenn moomu leen. nii doo leen forcer sa bopp doo jël benn son tey jii nii di leen ko forcer parce que man ba may doog a ñëw kenn xamuma waaw ah, am na ñoo xamante ni ba léegi ñu ngi may bëgg bëgg ma bëgg samay way te xamuñu ma xam nga ñoo xam ne ñu ngi may bëgg tey jii nii xam nga mosuñu ma gis kon tey jii moo tax na ne nit kenn du leen forcer sa bopp looy liggéey rek na doon loo xamante ni day nice parce lu neex rek nit ñi dañ koy déglu kenn moomul aar bi kenn moomu fi kenn ku ne xoox sa ngay yor di déglu ama loo xamante ni tey jii nii danga koy bàyyi loxo yàlla waaw album bi nag a ah, incha allah Sénégal dafa doon dëkk boo xamante ni album dafay metti foog nga am benn moyen bi nga xamante ni xooloo si xaalis retour bi parce que album pour nga gagné si carrément fii nekkul lu facile da ngay def album nag am na ñoo xamante ni ñu ngi si niveau boo xam ne mën nañ def album sans xaalis xaar ñu si dara dañ siy xaar pour bëggal seen soppe ak pour am seen répertoire boo xamante ni dina nice quoi parce que àdduna lépp loo gis rek par étape la ñu ngi sant yàlla nag mais tey jii nii man. samay son man maay fayal sama bopp studio kenn jàppale ma si affaire studio maay fayal sama bopp sama ñaq laa jël def ko si xam nga am loo xamante ni bu ma sañoon bu dee euh, euh, xalaat bi rek am nañ loo xamante ni mun na def album bu dee cinq son bu dee six son bokkuma kenn style bokkuma kenn yoon aar daa bëri touche bëri voix style boo xamante ni la tey jii nii mun nga nekk ak sax war see liggéey ak moom après ñu dugale si domaine yoo xamante ne nii doo leen bokk gis-gis parce que mun nañ lay boo amee produit mun na la wàññi loolu sa tànk fii wala wàññi loolu fii wala wàññi loolu fële te àdduna tey ji man si may def pour xale yi la mag yee koy gis na di ko bëggal seen bopp di seen bopp mais man xale yi laay joobal parce que xale yi dañ ma bëgg ndax nit daf may woo ay guddi sama mënu ma nelaw ndax sama doom tegal ma way bi wala lii wala sama doom bi day tëdd fii di xaaru ndax ñee ne ten ko tegalu li xam nga kon tey ji da xam ne carrément am nga loo doon parce que kuy bëggal nit ñi rek tey ji nii kenn amul fayam te ku fi ne kuy sénégalais fii nii ba suñ bu la mi ngi bégal sa doom kon tey ji ñaan nañ yàlla suñu carrière tamit di def li nga xamante ni mooy gën a bégal àdduna waaw waaw mais yàlla na yàlla xeeb macha allah bas bëggoon nañ xam ndax li nga xamante ni mooy musique bi nga nekk mosoo cee dund lenn loo xamante ni lu la métti la ci sa xol chaque jour nga gis ko mais looy wax da gis loo xamante ni daf lay métti trop musique dafa am garaaw waaw dana loo xamante dundul nit di comprendre di nga si gis nit yoo xamante ne tamit doo leen comprendre comprendre nga mais dafa doon loo xamante ne tamit boo nekkee xale moom dal def pat di liggéey. waaw sax lay ñëw am na lu may gis luy raam de loo xamante ni bu yegsee du baax de. <laughs> non parce que. <laughs> del def patt boobu. mais xam nga adduna tamit des fois message daf si am solo. Uh-huh. waaye muy ne xam na solo ñu ñëpp si yam xam nga def nañ nooy moytoo sa noonu loolu message la. bu dee as tuut nooy moytoo sa noonu tamit message la boo xamante ne ku ne mun nga si yëg sa bopp Zezel affaire de mbëggeel la te ku ne yaa ngi dund mbëggeel sa biir xol bu ñuy def tamit war nañ tamit bu dee tey jii euh, da nga ne artiste nga war nga di ñëwee foo xamante ni des fois thème dafa am solo aussi parce que société bi li ñuy dund ñun dañ ko war di wax société bi ñuy dund des fois dañ leen si war di jàppale parce que tamit euh, def pat tontu na lépp. waaw maman xoo maa ngi lay bëggee. <laughs> maa ngi lay siyaar naan la bëgg yow koy fay loo ma bëgg benn bëgg naa la ko fukk. deux ans la man déggoo ma la xale yi xale yi xale yee ma bëgg du loo xamante ni dama koy waxantu nii man xale yi waxuma mag yi ñuy sax de xale yi ndaw yi billaay wallaay des fois sama yaram sax day daw xale yi ndaw yoo xam ne ay deux ans ay trois ans ay un an et sax billaay wallaay xam nga am na loo xamante ne kon mbirum yàlla la te xale ku mu bëgg rek waaw ah ay caaxaan quoi parce que tamit am na loo xamante ni tey jii nii boo koy def xale di kontaan rek a dafa war di gën a neex waaw nu mu tudd xoo waaw léegi xoo ah maman ah. zambal zambal waay sa zël zël zël loof ay yow maman feccal li ras kiis ras kiis ay moo di na ma neex zël zël zël zël zël soo yegg fay gën a neex ras kiis ras emam urakin kikin dat kinta cacat cacat ora kijan caki dan ora bacer cacat cacat cacat ora ora mama zezel zel waaw moom loolu dëgg neexul macha allah est-ce que mën gënuma koo dem sax macha allah kon kontaan nañ bas kon li ñuy def rek moom dañ lay bàyyi nga tàggatoog ñi nga xam ne ñoo la sa foofaale la toog di la seetaan waaw di kontaan fi ma toog nii di studio Louras Louras Prod Louras Diop sama frère waaw fii di xale tamit di liggéey sa tamit xale bu ndaw la taxawal affaire am di jàppale képp kuy artiste fii nii tey jii mu ngi lay jàppale sa carrière waaw don koo xamante ni tamit ka yi ko war a jàppale yàlla dafal ko jàmm dafal ko salaam dafal ko carrière boo xamante ni tamit xam nga dina am ay studio studio ba xaw am Europe waaw di sant tamit sama papa Mamadou Yatta Saay borom Aquaterra di ko santaat bu baax baayu Talib baayu Ndey Kumba baayu Ama baayu Papa Dadi waaw waaw maa ngi koy sant doomu Ndey Sow am na loo xamante ni tamit foog ma sant leen muy waa HLM ñi ma ñi ma ñi ma ma yar bi nga xamante ni mooy sama fierté te maay seen fierté Medina sama fierté la tamit maa ngi leen di sant sant sama gars waa Seng Seng rythme bàyyiwuma kenn Seng Seng rythme maa ngi sant ñëpp kaw ba suuf kaw ba suuf bu baax waa Africa Mbengeen waa Ndiaye Rose maa ngi leen di sant waa Sigil Siko waa Batterie HLM. ak képp ki nga xamante ne yaa ngi nekk artiste maa ngi lay bégee ak samay fans ñi may bégee ñi may ñaanal ñi nga xamante ne tamit xam nga ñu may jaaw sama papa Serigne Xaarim Mbaye borom ñaani si man ñoo ko maa ko naan papa ji sa ñaan moom may dal bu baax yàlla na la yàlla defal jàmb bu baax yàlla na la yàlla dolli sutura Xaarim Mbaye sama papa say ñaan yi ngi yegg si waaw gënal ñaan rek waaw sama cousin laay caw maa koy sant maam Seyni Laay Yaxara Mouhamed sama mag Rose Diagne sama mag Seydou Diagne beebu maa ngi sant samay yaay samay bàjjan samay papa di sant tamit samay xarit sama staff si sant tamit Babacar di sant si euh, mbay di sant gaay yëpp Ameth Diallo am gaay si jàpp yëpp Lassar Thio Jali Biba Sok gaay jàppale yëpp di sant tamit Magui Chanel madame Mangara maa ngi koy sant bu baax a baax waaw chéri Birima maa ngi koy sant di sant aussi Awa madame Dash Modou Ngom ñaa di sant àdduna ñi may jàppale Moustapha Diop troisième maa ngi koy sant bu baax borom HLM dëgg neexul yàlla seen jàmm yàgg macha allah macha allah kontaan nañ ñun tamit ñoo ngi lay sant di la gërëm bu baax euh, ci li opportunité bi nga jox ñu. merci amis téléspectateurs l'émission tire à sa fin euh, voilà c'était euh, Bastion donc on vous dit à la prochaine dans un autre numéro avec Sista Fafa restez scotchés sur Equivox TV votre télé à portée de main d'ici là portez-vous merveilleusement bien je vous aime.